wate waxoon kàddu yam wax waaye taalibe yi wuy si ko wuy siin woo xam ne itam kawe na njortam kon nag nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne leen Sëriñ Tuubaa de dafa waxoon ci njaareem na wootelo wooteloo nañ ma woote naa ñii wuy si wàcc nañ maa ci des ñii wuy si wut wàcc naa ñoo ci des nee na yéen nag na ngeen xam ne kon wàcc ngeen ndax woote na te wuy si ngeen ko nee na li ku ci gën a yéem nag dikkeen bi ngeen dikk ren ndax ko ne xam na ne waxtu wi xatoon na lool waaye nag alxuraan dafa am lu lu mu waxoon dafa waxoon ne ishtara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum al janna nee na yéen nag joxe ngeen seen alal joxe ngeen seen jëmm li tax ngeen joxe seen alal mooy jamono ji xat na lool waaye Sëriñ Tuubaa yëgut jamono ju xat wali si waaye yantahi day xus zaman sëriñ Abdul Ahad Mbacke waxoon na ne mbay mu nangu xol yu nangoo ko gën a wóor te xol yi nangu nangu nañ sëriñ Tuubaa te duñ gàntal nee na xam nañ ne xam na ne nag nongul ngeen nongul sëriñ Tuubaa nag moo tax ngeen wuy see nii dikki ngeen dikki nag wóor na ko ne kenn ku ci ne pëste fa mu amoon mooy naa màggali wala lu ma ca fekk rek baax na bu ci seen bakkan doon dese jaral na leen ko jaral na leen jaral na leen ko jooju nag fu yoon yu mas a tàmbalee ba fu mas a àgg moo ko fa yóbbu te loolu itam ñu ngi ko doon ci saxaaba